mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di rafetlu seen àndina ak la meilleure chaîne di net la chaîne des leaders Senbuzz TV muy doon mbégte ak kontaante saa su vraiment ñuy janoo ak euh, xam ngeen ni lu aay di jàmbat comme ni ko olof di waxee suñu maman Selbé Ndom euh, ñu seet siwaat ko fas yéene am plaisir quand même yow jotaay certainement waxtaane leneen loo xam ne tamit ay propos la yoo xam ne jamono ji nemmeeku nañ ko nga yëkkati a rédaction Senbuzz maman Selbé ahousubillahi mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim di sant yàlla rek sant boo xam ne xam naa fu mu commencé mais xaw ma fu mu yem di julli ci yonent bi sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy sama wasila ah duma fàtte Seydi Mouhamed Moustapha Sy sama kóllëre maanaam du nuyu seen bës. merci beaucoup di nuyu Amadou. Mm. sama doom. Mm. di la nuyu oustaz. Mm, ah, merci merci Baye Sikkim maa ngi ziar ñëpp. <laughs> maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp. yéen ñëpp maa ngi leen di ziar di ñaan seen bës toujours ci kaw rek. ci kanam parce que seen bës moom surtout dëgg la. absolument amul jayaate amul dara. dëgg la waaw xuli xaq mooy seen bës. merci beaucoup alors xam nga ni jamono ji wax dëgg yàlla Lions yi wuteelu nañu fële nga xam ne mooy Cameroun ak Coupe d'Afrique boo xam ne vraiment xale sax tuddee nañu ko tendance dernière chance sa Coupe d'Afrique bi nga xam ne moom lañ dégmal wala wax dëgg yàlla xalaat boo xam ne am nga ko ci. waa xam nga macha allah sant yàlla bañ ko fekkee. Hmm. ndax bële yoon taxoon nañ ci rëpp. yàlla def ñu fekke bii kenn ku nekk sa dëkk nga am. Cameroun Cameroun la am. Niger Niger la am. Algérie Algérie la am ñun Sénégal la am. te bu ñu sañoon macha allah ñu dem ba ne ciix coupe bi indi ko fii. Hmm. te ñaan yàlla may ñu ko. mu nekk jàmm ak salaam ah fas yéene góorgóorlu rek mm. ñu ñëpp nañu ànd ak yàlla di ñaan yàlla talal yàlla sunu loxo pour maanaam sunu réew gën a jëm kanam rek comme ni ko président defee nii mm. defal ñu train loo xam ne danga daan woo nit mu nekk ca Europe mm. mu ne la maa ngi ci train bi tey buñ dundee ba am ci maanaam développement ñëw na daal Sénégal ñaan yàlla mu gën a développé rek daraja Seydina Mohamed ñu baaxoo woon yu événement yu demee nii bu ci réew mi tolloo quand même wala mal ko nga ci daan yëkkati sa kàddu danga nga décidé ban ci wax wala da nga ci gisagul loo mën a wax. gisaguma ko xam nga selbe selbe yàlla la selbe yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam. Mm. parce que comme na ma daan def rek bés bu ma ci gisee rek incha allahu rabbi dinaa ci wax le 10 la. Euh, daje naa dajale naa trois matchs yi ñu war a am yëpp. Mm. Euh, le dix yaakaar naa ak le quatorze xaw ma mm. yëpp daal. Euh, noté naa ko maa ngi xaar yàlla. es ce que du <laughs> sama tata coowu nen bii fa amoon nag coowu nen yooyu noonu. ah fi mu ne bu jëree bu jëree saraxu mbott sax est-ce que du loolu ma ne. barakati laa ilaha bu jëree saraxu mbott sax ma ne nappi mbott ci gi ñëw indil Sénégal. Mm. parce que sama réew la je suis fière d'être sénégalaise. man taalibi Sëñ dama bëgg sama réew lu mu jar rek incha allahu rabbi dinañ ko def. mais mm. dañuy bàyyi yàlla mi nga xam ne moo ñuy won tànk wanuñu nag duñu wax. c'est vrai comme yoon bu mujj bi maa wax dëgg yàlla xale yi tendance woon nañ la lool quand mu xawoon a compliqué ci yow surtout bi yàlla defee quand waa Algérie door ñu est que du tamit loolu ngay bàyyi xel moo tax xëy na sañu. góor non non non non man tamit man taal bi sëñ Tuubaa laa. parce que après neen yi moom coow juddu woon. ci moment ah non neen ya kay baarakallahu neen daa baax yeneen ya baax ba final ba. Mm. ca laay a ñàkk xam nga am na dëkk boo xam ne dañoo amoon ay xërëm boobu moo gënoon a métti ñëpp ne dañ ñuy dóor ndax xërëm ya far man ma xërëm leen gas ba mu xóot taal leen fay leen yàlla def Sénégal dóor leen macha allah final ba daal laa ñàkk. te bu ma sañoon du ñàkk finaal ba xam nga ki dem ba dóor demi final. ba dem final ba suñoon da ngay am final mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam. Mm-hmm. man maa ngi ci. Mm-hmm. alors ngay ngay quand même volonté wu di def li nga xamee ni certainement moom nga yaakaar ni moom la la yàlla may mooy sa métier aussi euh, ngir indi sa touche ci li nga xam ni mooy Sénégal ak ay compétition yi nga xamee ni mu ngi koy amal mais am ay jugement yoo xam ni souvent vraiment dina daal ci kaw nan ngay dundee moment boobu ak jugement yi nga xamee ni vraiment léeg-léeg ñu jëmale ko ci yow. métti na parce que nit la bu fekkonte ne sama yaay dafa dund dinaa mën a ñëw làqatu sama wetu yaay ne sama papa dafay dund dinaa mën a làqatu sama wetu papa. mu xelal ma waxal ma defal ma mais alhamdulilah rabbil alamin ci wetu ki ma nekk moo gën a moo gën a màgg moo gën a rëy mu yàlla subhanahu wa taala aw ma borom kër bu may defal yenn saa yi nga dégg lu metti yenn saa nit bàyyi la vocal wax la loo xam ne waru la ko wax sa doom du la ko du la ko wax te yow sa doom du ko wax yaayam waaye nag loo jàkkaar loolul mun maa am lu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul waaw mun maa mun am loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amu ko mun ma am lu Serigne Touba amul kilifa yu baax yi jaar nañ fu ne kon man fas da force nga muñ rek. terewul toujours ngay am courage wax dëgg yàlla lépp loo xam ne rek gis nga ni quand même alors xaw na intéressé Sénégal yi moo xam lu jëm ci football la wala lu intéressé quand li nga xam ne mooy dëkk bi nga indi sa touche à chaque fois aussi yaa ngi am courage Maman Selbé di wax donte ni jugement yi coow yi day bari quand même TikTok yi xam nga ni léegi c'est vrai que tamit ñu bari ci ñoom interprétation bi ñu ciy am. du ànd ak yar nga nekk mère de famille tamit bëgg naa quand même nga expliquer ñu moment yooyu difficulté yooyu nan hmm. koy dundee ci loo xam ne bëgg sa réew mais surtout def sa liggéey moo la ci dugal. parce que booy xool xale yu ndaw yi ay 13 ans 14 ans 16 ans ñooy commentaire ñoo xam ne majeuruñu ñooy wax loolu ku la ne neex na ma waxul dëgg. ñu lay jàll ci say waajur ci sama yaay gaañu na sama papa gaañu na ñu ciy jàll su ma la waxee neex na ma waxuma dëgg. waaye nag inna allaha maa sabirin yaa ma ko gën a xam soo ñul nooy def am na ñoo xam ne maa tane ñi ñuy jàpp ñu dara ñu leen dugal ci kaso bi ñooñu maa leen tane. Mm-hmm. ñee dañuy wax rek seen wax egsiwul sama biir kër buñ ma ko nettiwul wala nit woo ma ci man duma ko dégg. Mm-hmm. commentaire yi dañ ma koy wax mais man man commentaire sax yàlla def na du ma ko. Hmm. du ma ko seetaan. Hmm. ndax euh, dama egg benn niveau. kenn ku ci nekk day ñaan dem ca kaw. ca kaw. Hmm. dama egg benn niveau. boo xam ne xëyuma xëy rek ni dix. dama commencé ci un deux trois quatre cinq ba jëm dix. kon maanaam su ma la waxee méttiwul rek waxuma dëgg. vraiment métti na. métti na métti na ba ku ma woo di ma saaga. billaahi dama lay bëgg a jàpp xam naa loolu sax xam naa sax dinañ ci ñëw certainement moment yi ak rawatina li nga xam ne moo gën a récent aussi naan nga koy dundee mhm. mais ndax tamit euh, du xaw a nekk euh, problème tuuti wala du xaw a jafe vraiment dégg quand même parce que ñeneen ñi dañ naan pourquoi yu deme nii bu mu amee maman Selbé di yëkkati kàddoom lu ko lu tax mu yëkkati kàddoom ban intérêt la ci am loolu lan nga ciy tontu. xam nga nit ñee bëgg may wax. am na ñuy xaar nga wax. adduna bi yëpp dañuy xaar ma wax mm-hmm. loolu mooy problème bi mm-hmm. man nee naa leen su nekkoon man kese billaahi wallahi watallaahi mënatumaa wax ba am lu raw li ma am nii waxa ma may kër wax a tax ma dem ziyaare gi Seydina Muhammad dem Madina ziyaare gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ko may mm-hmm. waxa tax ma dem ci néegu yàlla ba musuma xalaat ne dina am possibilité de màkkatal mu karama hmm. daw safa ak marwa inna safa wal marwata min sha'airillah hmm. ma sant ko yàlla hmm. mais euh, li may wax nit daal mooy nañu xam ne Selbé Ndom du ragal taalibe Sëriñ Tuuba te képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullahi am na lu tax nga di ko wax mooy imaan dama am imaan am ihsaan am tawxiid mm-hmm. am na loo xam ne sax dafa rafetul nga di ko wax sa moroomu doomu aadama. asimaak sa moroomu jullit moo xam ne tooñu la. Mm. man nit ñi ñoo ma naan Maître Selbé loo xam ci lii gis nga bii combat bi biñ ne suba la ci guddi gi naru moon a wax sax. du damaa ragal nag. Mm-hmm. man maa wax ba toog daal ba ba daal neexatuma ndax dama gis ci làmb ji loo xam ne. Mm-hmm. comprendre ma. très bien euh, combat bi certainement dinañ ci dugg après. Ah. mais tamit euh, gisoo ni tamit ma Selbé quand même euh, c' est vrai que wax dëgg yàlla yaa xàll langue gi quand même ba domaine bi nga xam ne yaa ngi koy def ñu bari fekk si la ci mais pour nga xaw a sa image tuuti jaaduwul tamit nga xaw a réserver wu certainement. wàññi communication yi nga xamee ni donte ne askan wee tax nga koy def Sénégal moo tax nga koy def mais dafa am jugement boo xam ni moom la lay jural ci askan wi. waaw xam nga est-ce que mës naa am image bu baax ci Sénégal. mais bien sûr am na amoon nga ay fans nag. amoon ay soppi am naa ñu ma bëgg gaa. ndax bu ñu xoolee sama jëb yi dinañ xam ne fii am na lu fi yàlla def du hasard jëb yi ñuul daa am ak leer macha allah sant yàlla xam nga bu fekkonte ne ñoom li ñuy def dina ma naqari bu baax a baax ba tax may jooy. Hmm. mooy suma yàlla mayee ndam muy football ñu ne ah Selbé Ndom am na ndam alhamdulilah ma xam ne ah ñii kat am nañu ko yéene ci man. Hmm. mais du football du leneen. yàlla mënumaa may lu mu mayul Seydina Mohamed mi nga xam ne mooy xayru xalqillah. Hmm. bi tax yàlla ne ko loolu laa kamaa xuliqat shamsun wala qamarun wala nujumun wala lawxin wala qalamin hmm. yàlla may na yonent bi aswatul badr hmm. li mu yéefar yi moo ëpp li mu li mu jullit yi hmm. xam nga ci dara far yàlla def Seydina Muhammad ak sahabam gañe mais am na uxut fañ tëral Hamza demagoo foofa insha allahu rabbi di fa dem maanaam jabal ba montagne ba. Mm-hmm. nga xam ne yéefar yi dañ leen a nax ba yéeg ci ñoom ba tiim leen. Mm-hmm. boo taxawee ci mm-hmm. jabal da nga gis bàmmeelu Amza. absolument alors foofu. kon maanaam nit nit mënoo mucc quand mënoo mucc ci ci waxu nit ñi wala yenn jugement yi c'est clair mais mais lan moo ci sa responsabilité maman Selbé. certainement aussi du ñàkk am nga ci. responsabilité dara benn responsabilité aw moo ko ndax maanaam ñooy bëgg may wax may wax yàgg a wax am jom yi wax. di wax loo xam ni kenn mësu ko wax Sénégal kenn amul kenn benn liggéeykat walla benn sëriñ bu dul sëñ Fallou Mbakke te sëñ Bal Fallou Mbakke li mu doon mooy na taw mu taw. kookoy borom na taw mu taw na am mu am waaye benn Selbé Ndom fii ki Sénégal su ma neex sax àddina bi maa fi wax ne laa wax président de la république. xanaa kuy fen doo feneel président. 2009 mm. laa ne Macky Sall tu seras le quatrième président de la République 2009 te élection yi war a nekk 2012 ñu ne kii dafa daf mm. ma ne Bécaye mbay mu ne ah ma ne ko bàyyi mañ ñëwoon ngir boo doo dina ko daañ. bàyyi ma ñoon day tiit bëggoon naa ci indi ay détails sax. xaaral am na benn benn professeur Ibrahima Sow nekk ci université Cheikh Anta wax dëgg yàlla am na benn kii bu mu la jagle wane ko fii wane daal victoire ak vraiment yi nga xam ne souvent wane nga ko depuis 2009 waaw alors loolu bëggoon naa ñu ñëw ci vas-y yeggali li nga wax ba pare. xam nga loolu. ki mhm. ne président bëgg doon président mu ne ko depuis mille 2009 ne ko tu seras le quatrième président de la république ñu toog 2010 2011 2012. ci biir jotaay ba dégg naa ñu ne kii dafa daf Macky Sall ci boppam dafa ne waa kii kan la. dafa na ma yaay kan mën ko man la Selbé Ndom fekk juróomi dërëm laa yor sama loxo. Hmm. lii du lu ma choisir. nag hmm. àddina bi yëpp xam. Hmm. man togg laay def. crochet yére bébé létt lu nekk sama bopp bi maa ko def lu nekk sama bopp doom maa ko def. fu ma la watoon nag sama loxo danga naan kii du nit. mais. nañu xam ne lu yàlla dogal la. Mm-hmm. duma ko bañ. alors mais mais euh, yan explication ngay joxe aussi c'est vrai que taamu woon nañu encore une fois ma laajaat la ko maman Selbé waa ji mu ngi koy préciser gis nañu li nga waxoon ci ni jamono ba koy Balla Gaye 2 di daan kenn yaakaaru ko. Mm-hmm. Euh, Gris Bordeaux bàyyi ma ñoon aussi demet bari na ay combat yoo xam ne wax dëgg yàlla boo waxoon mu tombé. loolu yëpp la mu commencé maman est-ce que bi da dem ba toll foo xam ne wax dëgg yàlla palmarès bi rafet na nga war a xeex ngir bañ ko tilimal tamit sama yaayu boobu. xam nga ma ko. Hmm. déggoo li ma la wax mënumaa am lu Seydina Mohamed amul ma ñëwaat ci yàlla da ko doon may ndam xëy xañ ko ndam yàlla may na Seydina Mohamed ñaata victoire waaye xañ na ko Uhud Xandaq yeneen ak yeneen mayul lépp ba mu ba mu egg. ñi dañoo wër di déglu ubbi seen nopp kon léegi damaa bëgg ñoom ñoom nit ñi nit ñu bon ñi nga xam ne dañoo iñaan soxor damaa bëgg ñu yëkkati seeni nopp di may déglu di analyser li may wax di ko décortiquer daf ciy baax man mënuñu maa iñaane ba yàlla gis nga bakken sama bakken bii ngelaw gi ciy nooy di dem di dikk sama bët yi may xool ñoom mënuñu ma koo iñaane man dem naa ci kaw ba pare bu ñu sonal béeruwaay njaw du mel ni leen nañ ma def ni ma yàlla def mu noppal leen hmm. saa ma deful ni ma yàlla def chaque jour que jafeere ñuy jaaxle ndax buñ ne nii yum Selbé Ndom génne feneen gis nga faramaareen bi bi bi bi bi kii wax ah, ah, waali sama sama taaw hmm. li mu booy xamu ko man dama prouvé tàmbaleegu ma gor laa sant sama baay bi ma utalee yaay ju baax ma sant sama baay ba ba ma ba ma utalee yaay bu baax sant sama yaay ba mu utalee baay bu baax man sëtu buur laa sëtu wàlliyu benn jigéen bi fi njëkk am jom njëkk am fit jël ñeenti petaaw di ci wax lu dara jarul eh kër du caaxaanaa ah, du foo dem ziyaare yonent bi bi bi màkk deux millions la mais maman nga baal ma sama yaay nga bëgguma la tooñ mais temps yi li ngay jëlu mënta ñàkk déggoo li ma la wax mënta ñàkk li may jëlu nit ñi da maa war a déglu du da ngeen di ñëw ci combat bi. Hmm. dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw mais wax ma ci jël yi nga xam ne vraiment tamit ñu bari ci jugement boobu lañ gis yow maman. waaw waaw mais déggool xam nga dama laa indil ñu ne. ne la yàlla mayul munu maa may man Selbé Ndom mii lu mu mayul Seydina Mohamed wallahi alazim. que xam nga Sénégalais yi fi ñuy toog lañ toog naan yow sa bul tëkkale sa bopp ak yonent yàlla Mohamed. waaw waaw mais en kay ku bëgg lu baax. di nga jël sa bët bii teg ko ci Seydina Mohamed nga xam ne mooy xayru xalqilaa mm. yow doo jël sa bët teg ko ci Seydina Mohamed lu tax fu ne Seydina Mohamed nga ne sallallahu alayhi wa sallam mm. man ne sama bët bii dama koy teg ci yàlla mm. moom mi ma bind tax ma mën a wax di yëkkati may may may xoole mën a yëkkati sama tànk dama ko njëkk a teg ci yàlla dog ko teg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne yàlla moo ko tànn def ko nga ngi mun def na nit ñi yeewu te bàyyi seen dof dof lu bi xam nga su fekkoonte ne saa ma amee ndam muy football muy làmb muy leneen ma wax ne lii dina am ba mu am su fekkonte ne doon nañ wax ah wax dëgg yàlla ah tey de macha allah comme ni ko góor gi de professeur Ibrahima Sow kii day gor la mm-hmm. kii wax fa ma jaar yëpp macha allah mais maman lii nag jamono ba ngay tàng la c'est vrai que lii depuis 2010. tey laa gën a tàng tey laa gën a tàng tey laa gën a tàng. mais maman temps laa gën a tàng man bëgguma la tooñ quand même mais. <laughs> déggoo ma la par rapport ak léegi. déggoo la wax tey laa gën a tàng xam nga làmb ji hmm. dafa am xeex. te man góor laa rek man duma jaam góor laa. làmb dañoo war a xam ne jaaykatu gerte caax ba sax ca làmb ji la bokk. mën ngay yàqal nit ba yàqule nit ki lu mu bokk ko ca tey neex waaye bàyyi lii te loolu ñeneen da ca wax yow nga tànn sépp benn nit rek mm-hmm. waaye su ma la toppoon topp la topp la bu yàggee nag di nga ne lii jaru ko très topp yàlla rek nga mën a def ñu ne la bàyyil te doo bàyyi mais lu dul topp yàlla nangul Seydina Mohamed wallahi mën nga koo bàyyi. très bien beneen coow topp la mu jëm ci combat wu Balla Gaye 2 Bombardier bi nga xamee ne askan wi xaaroon nañ ko ak coow li nga xamee ne am na ci. Mhm. yow yàlla def wax dëgg yàlla bari lool luñ ci la ciy jiiñ euh, baaraamu tuuma ci combat bi weesu euh, ñu bari ci askan wi dëggaloon say kàddu mu mel ni après mbetteel la ñaam ci ñoom. yan leer nga loolu moom dama ciy sant yàlla. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam selbe boo gisee vidéo yi nee naa leen nit kese laa muy benn naruma ci woon a wax muy ñaar ndax diggante Bombardier ak Balla Gaye bañ ko tëggee yàlla mi nga xam ne mooy woon selbe daf ma woon Bombardier daanu tiit man MMA bu ma ko xamee yàggul far yàlla def mu am combat MMA ñu dóor ko mu daanu moom kan Bombardier. moom Bombardier. Mhm. tubaab ba dóor ko mu daanu. am na samay vidéo sax TikTok dama ne boo ko mu Bombardier yaa bàyyi sa garde yaa may waaj fum la doore ci fii ci point la am na sama TikTok bu ma ko wax. ñu dem ci komba bi ma ne naa xaar naa xaar naa xaar ba xam ndax dinaa ci gis leneen ma xaar gisuma dara lu dul Balla Gaye taxaw Bombardier taxaw ñu laaj ma ma ne leen bu fekkoonte ne MMA amul. Eh, MMA nga baal ma mais eh, MMA bi moo jiitu combat bi tamit xaw na toog benn eh, euh, xanaa déggu leen damaa bëgg nga déglu ma bu baax bu nekkee nit nga. Mhm. te say nopp baax. bu nekkee nit nga te say mhm. nopp baax. Mhm. balaa MMA di am dañoo wax ne Balla Gaye ak Bombardier dañuy bëre balaa MMA di am. komba bu yàgg la. yàlla def ma gis Bombardier daanu tiit ma ne kon digganteem la ak Balla Gaye après MMA am te diggante ba ba may gis loolu boobu MMA amagut léegi nag ba MMA ba amee. Hmm. Bombardier ñu daan ko maanaam mu kaaw. Hmm. combat bi ñëw ñu ne ma loo ci gis ma ne leen su fekkoonte ne nekkul woon ca MMA ba MMA amutoon kon Balla Gaye mooy moom combat bi. loolu nga wax bu fekkee ni. bu fekkente ne MMA amutoon. Balla Gaye mooy daan Bombardier ndax bi ñu waxee ne Bombardier ak Balla Gaye dañuy bëre. Hmm. maanaam ci laa gis Bombardier daanu mais MMA dafa am Bombardier ñu daan ko xam naa ne bañ ko daanee tiit na ah loo ci gis ma ne ko gisuma ki dara lu lu ba Balla Gaye taxaw mhm. Bombardier taxaw ñaari mbëri jàkkaarloo loolu laa ci gis ah kon de ma ne ko man di gisuma woon bu fekkonte ne daan daal mhm. Balla gay moo waroon a daan gisuma ci leneen mhm. léegi Bombardier ñu jox ko victoire ci xawma lan. c'est vrai que Sénégal yëpp nga baal ma Salbé. avertissement mais Sénégal yëpp li ñu wax mooy ma Salbé. saaga nañ ma ci wala dafa wane woon ni Balla Gaye day jël. déggoo li ma la déglu leen déglu leen bu baax dama ne. Hmm. bu fekkante ne élément amutoon ma ne Balla Gaye mooy daan Bombardier. kon yow loolu waxoo ko. juste avant combat bi kon alors yàgg wax nga ko bu yàgg kon. barakati laa ilaha illallah nee naa leen wurewa dem na këng wax yu mag dem na dañ tàlli jël am na ba pare booba laa gisoon Bombardier daanu tiit. loolu avant seen combat di taxaw le premier janvier. avant combat bi taxaw moom laa ne euh, euh, euh, kii ah, nu ngeen koy waxee. wurewa dem na wax yu dem na dañ tàlli jël am na ba mhm. man damay xaar bis wi ñëw. Balla Gaye daan Bombardier ndax loolu la ma yàlla won man Bombardier mës na maa may enveloppe bu deux cent mille am na wax waxkatub làmb bu ma yóbbu woon ca Mbuur am na ku mu doon bëreel de yóbbu ma ca moom ne ne ne Bombardier moo nekk moo nekk mbërëm Bombardier jox ma enveloppe bu deux cent mille jëndal ma pizza ma lekk ba suur mhm. Balla saa yu daanaan damay dem këram mu yëkkati ñaar fukki junni may ma. Hmm. dalal ma. Hmm. balaa mu bëri dama ko naan nii ngay daane gëj naa gis sax Balla Gaye. Hmm. munumaa ni damay bëgg benn mbër rekk ci àddina ndax lépp Sénégal la. dama ne bu MMA amutoon. Balla Gaye mooy moom làmb ji mooy daan Bombardier ji. jugement yu négatif yi nga xam aussi juddu na ci menaces yi nga xam aussi yaa ci yaa ngi jot euh, loolu naan nga koy dundee maman Selbé mais également ban message ngay jëmale ci loolu. du du menace sax du menace sax liñ ma def moo raw menace parce que man sama sama yaay ak sama papa dama koo kafewut dégg nga ma. Hmm. Selbé nañu xam ne sénégales la man sénégales la lu waay di jaay rek bu ñëwee fii. fii la ëppee damay doon doomu séeréer ami rab ami rab damay daanu damay daanu rab mbuufeel maa ko moom dama fekk sama baay di wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna damay dem jënd ci champagne yee teg fii naan ba ni durute boobu laa lay dàq wax waaye damaa fekk sama papa doon jullit mu ne moom du du def dara lu bon mais am naa ay maam yoo xam ne ay ceddo lañu dañuy naan waaye dama préféré bañ koo def. Mm-hmm. numéro bii 39. 326 582 29 06 kooku lu ma waxul da koo fàtte waaye man it jumbool naa ko de dafa am nag kilifa gu mag gu nekk ci réew mi koo xam ne dama koo def ni sama baay def ko ni sama mag def ko kilifa. te dafa may seetaan moo tax yu bari duma ko mën dama romb ñi ma bëgg mi kilifa googu daf may seetaan moo tax am na yu bari yoo xam ne mhm. duma ko mën sinon te sénégalais yi dinaa leen woon qui je suis et je suis capable lu nekk ci ñoom lu nekk ci mën a ko raw ndax yàlla dafa ma may ma aay ñeent petaaw ma sànni ko fi wax leen lu dul dañ bi muy bind ci man damaa xëy xëy rek ñu ne ma am na ko def ci yow livre mi ngi nii billaahi wallaahi watallaahi mosuma koo fay juróomi dërëm ndax ma daan invité université xale yi jàng ci man mosuma ko wax fenn ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu continuer di woote ci 77 744 39 18 Amadou dig ma ko may 77 737 67 46 ñi may saaga nag nañu xam ne dañoo am chance man duma nekk ci internet bi di dagg ay saagay ndey ndax dafa am kilifa yu ma bëgg. am nit ñu ma jox cër ma am ay doom. samay doom ñoo leen gën a xamadi fuuf ndax génn ñu jëndi benn sama doom bu jigéen jëndiwul juróomi dënam poobar. Mhm. lépp yaayam am na ko maa ngi ñafe. lu sonaluma kenn ña nga xam nag ñoo may yàqal di yebal ay nit ñi di ma xeex ñooñu nañu noppalu. très bien message bi leer na. tawakkatu alallahi bi. Mm. dafay dëgg ci man. Mm-hmm. la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Abu Bakr laa tahzan inna allaha maana dama naan inna allaha maayi. dafa leer nañ. triché wu ma dara. Mm-hmm. man duuru barakati laa ilaha illallah sàccuma xaalis jàmbur Western Union boolekewul sama tur duma wax nit fotol ma sa loxo ma seetal la nekkal ba Chine wala Japon soo ma kiyee dama lay seetal normal waaw rek ngay wax fi ne di amul kenn kuy taxaw sama buntu kër ne naa fay dërëmu mais yi nga xam ne aussi léeg-léeg mu am ci say propos yàqulu la dara kon wala gisoo ni mën na la yàqal dara quand man dara yàqalatuma dara. Hmm. xam nga lu tax. Hmm. li ma bëgg yàlla ma koy defal. maa ngi am wér. sama jaboot a ngi am wér. maa ngi am dépasse. loo bëgg léegi ma toggal la ko léegi bu dee ceebu jën xale yi toggal la ko léegi. bu dee ceebu yàpp xale yi toggal la ko léegi bu dee ceebu ginaar xale yi toggal la ko léegi bu dee vermicelle xale yi toggal la ko léegi bu dee spaghetti xale yi toggal la ko léegi bu dee maafe yàpp barkati la ilaha illallahu su ngeen pare may naa leen ngeen dugg sama biir waañ dama bëgg ngeen vidéo ma yéen waa seen bëgg vidéo leen ma sama kër gi ci suuf ba ci kaw kenn mayu ma ko ginnaaw yàlla yonent bi sama pettaaw yee ma ko may mm-hmm. moo may fayal courant moo may fayal ndox ki may won nag nañ dem ba ca moom ñi may geer ñoom nañ yéeg ci kaw wax ak yàlla su man sel bi maa yàlla ci kaw la dëkk ci asamaan si la dëkk fi suuf si ngay teg sa dànk ndox da ka ne booy gis jibril alayhi salaam ci si lay jóge sooy gis seydina Muhammad ci kaw asamaan si lay jóge yàlla bu jëlee ruux fan la koy yóbbu hmm. du ci kaw Hmm. tubaab yi demoon te kaw di wëri bañ déggee allahu akbar dañoo tiit li ma nekkee du du faux. très bien. du hasard. Hmm. du lu ma choisir. leneen loo xam ni mënu ma la ko bañ a laaj nga baal ma xam naa léegi tey ñu xaw a tàggoo maman Selbé ñu bari gis ni ci victime yu Balla Gaye yi ci nga bokk maanaam ñi nga xamee ne vraiment cette fois ci daal <laughs> xaw nañu tojal Balla Gaye ub um nañ ko wala ci les portes du malheur. ci nga bokk non non man umuma Balla ah, ah, Gaye. Balla Gaye balaa mu daan bëre. Hmm. man porte bonheur Balla Gaye laa man su ma neexee dama naan ni ma amee ni ma àndee ci rawaani Wally àndoon ak rawaani Youssou Ndour bokk ci rawaani Youssou Ndour yi noonu laa bokkee woon ci rawaani Balla Gaye yi bokk ci rawaani président Macky sal noonu laa bokk ci rawaani Wally Seck hmm. saa yu doon bëre balaa moo bëre Balla Gaye mi may dégg sama doom la faaw ma dem jàkkaarloog moom nekkoon ñi ngay daane. léegi amatul de. gëj naa gis Balla Gaye sax génnee nañ la ci staff moom man dégg naa xeex nañ la ba génnee fa Balla ba léegi moom. moo tax ma nangu lay bañ a dégg. damaa damaa nangu sama doom la nag. loolu da koy déggal sama doom la ah wax dëgg yàlla gisanteetuma ak Balla Gaye. problème dafa amoon seen diggante kay moom kay bàyyi na la ñoo am problème man daal am na benn dëj bu ma demoon dëj ba ba ma fa dajeeg Balla Gaye wax dëgg yàlla daf ma doon dindi yàpp di ma tegal maak moom ñoo bokk añ maak moom mm-hmm. ñoo bokk añ mu yëkkati boisson bi wallahi azim ak ndoxu kiran ba di ma tegal présenté ma baabooy ne ma kii sama mag la mm-hmm. dafa bëgg baabooy ne ma mm-hmm. kii sama mag la dëj booba dégg naa fa lu ma naqari waaye du ci gémmi ñu Balla gay de ndax dix mille ya ma jaalee dañ ko doon paasante ba ñu ñëwee ne ma génnal néeg bi fekk na man may waaj jigéen ca laa xam ne nag li séeréer di wax caaxaan faaxatee. dañ la génne jour boobu si dëj bi. dañ ma doon waaj a génne far bu ñëwee ne nañ def ci biti dix mille francs ba ma jaalee dañ ko doon paasante waaye borom dëj ba da yëgu ko. te taxoon jëmm ji taxoon ma dem te mu deele yëgul sax la fa doon daw. Balla Gaye xuloo ma ak moom. xeexuma ak moom. mais depuis nga demoon Balla Gaye ci boppam ci la yàqu am seen diggante. dégguloo li ma li ma la yàqu amul sama digganteek ak Balla Gaye dama ko woo dama ko doon bind message wuyu wuyuwu ma nit ki nag balaa ñu naan eh yemal fii. waaye man may sëtu buur di sëtu wàllu yu yàlla may ma xam-xam man sëtu buur laa sëtu wàllu yu laa wàllu yu laa kuy gis lu ñëwagul wàllu yu nga ku gis jibril alayhi salaam wàllu yu nga ku gis cheikh ahmada tijaani wàllu yu nga ku gis omar fuuti wàllu yu nga ku jox maam Baye Niass te fekkoo nga ku sëñ Tuubaa di seet si wàllu yu laa man Selbé kaamil mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. damaa bokk ci Balla Gaye ban Selbé danga ci bokkoon léegi ba ma ci génnee nag déggul ma man damaa bokkoon ci Balla Gaye mm-hmm. ba muy ànd ak Youssou Ndour boobu xale la. Hmm. barkati laa ilaaha illa Allah doon neexal Balla Gaye rek moo tax nga doon nga doon déclarer victoire am ak yooyu. man Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye pour lan may neexal Balla Gaye. bëgg certainement mu ah, xaw a xaw a kiiwaat. damaa amul fa tey yu ne mun takkuma or. Hmm. diwuma walla yéeguma ay escalier lalla je mange bien je dors bien je sangu bien je lekk yàpp bien je je seeñu yaxu ginaar bien kañ dugg sama waañ hmm. ci jigéen bu amul jëkkër amul ndey amul baay waaye yàllaay sama ndey mooy sama baay mooy sama lépp dama amul habitude di jóg ut sama kalandoo fay ko cinq mille francs fu ma taxaw dinañ ma teral waaye damay bañ ëllëg suñu borom def ma multimilliardaire ñu naan fii la fii la jaaroon. Hmm. Selbé Ndom daa marqué empreinte nga livre bi ma la woon nii. Hmm. won ko àddina bi. musuma koo wone hmm. kii de nitu dëgg la. Balla Gaye nag na xam ne Balla Gaye man damaa bokk ci yow boo ma génnee it wala buñ la waxee nga génne ma it damaa bokk ci yow. donte ni staff bi génnee nañ la moom jamono ji amul staff. ndax amul ay menaces yoo xam ne pour jeexal. non kenn menacé jot nga bi nga xamee ni aussi. man gis naa fa ay kanam yoo xam ne. bañ ma mooy ba muy bëreeg Bombardier te boobu damaa gis Balla Gaye arrière ci escalier ma woo Pet Jabaay ne ko Balla Gaye bu ma du bëre de ndax Bombardier dina ko daan. Mhm. mu am ñu dem ne Balla Gaye Selbé Ndom dafa ànd ak Bombardier yi bàyyi la ma dem fa pour gis ko mu lànk ne du ma gis àdduna laay waxee de ma am nag lu ma naqari ndax loolu la ñuy wax barakati laa ilaha illallah dara du ci dëgg man maa bëggoon Balla Gaye lool bay déranger fii di dem ci këram mbër yu bëri ñoo ñëw sama kër. Mhm. mais man maa doon dem kër Balla Gaye ndax yàlla dëgg rekk la bëgg. Mhm. jël Balla Gaye def ko sama xol bii ba mu bëri ak bomb ak euh, Modou Lo bu njëkk. Mhm. ba muy sol turé. laa toppoon Balla di dem ñu may bëmax. très bien. ndax hmm. Balla Gaye dañoo yàgg. leer na Balla daa bokk ci yow. très bien waxuma ko pour mu jëlaat ma de. Balla xanaa bu ñëwoon man sax man selbe ma ngemb ko sama doom la.